di leen wax tey dañ leen woo fii pour waxtaanee li xew ngeen xam ko mooy conseil constitutionnel kuréel bi nga xam ne mooy saytu doxalinu constitution surtout ci wàllu jongante dafa jël dogal démb daal di dëggal ñaar fukki candidat yu bugg a nekk ci jongante présidence de la république bi war a am 25 février 2024 yàlla def ma bokk ci di ci sant yàlla di ci gërëm ñëpp si gërëm sumay waajur surtout sama waajur bu góor bi nga xam ne génn na àdduna bëggoon naa mu fekkee ko di ci également sant di ci félicité suma waa parti PCS jëngu tabax nga xam ne Mor jaay moo ko jiite ñu liggéey ci liggéey bu mucc ayib ñi ñu jege dëkk bi yëpp ba mën a taxawal parrainage bi moo ñu permettre ñu jàll ah loolu am na pour ñun waaye am na ñu ko xañ ñoo xam ne yelloo woon nañ yelloo woon nañ ko ci seen jaar-jaar yelloo nañ ko ci seen taxawaay ci wàllu politique mais xañ nañ leen ko ndax système bi ni mu taxawee dafa am ay jumtukaay jumtuwaay yoo xam ne euh, permettre na ñu mën a bedd ay nit ci élection yi loolu lu doy waar yi nag dafay am ci contexte bu doy waar parce que dafa am ñett ñoo xam ne ñi bokkuñu ci ñett kenn ki moo jiite woon réew mi ñaari bandaam jeex bokku ci loolu situation bi amaguñ ko woon Sénégal keneen ku ci bokkul mooy chefu opposition bi kooku tam bokkul ci élection yi ñetteel bi nga xam ne bokk ci mooy ki nga xam ne moom moo représenté premier parti d'opposition bi fi nekk donc mun naa wax ne fii mooy élection wuute yi moom laay wax le scrutin des grandes absences loolu nag bu amee daf ñu war a yee parce que géew bu wéetee rek dafa am mbër yu ci bokkul te dafa am mbër yoo xam ne bu ñu bokkul ci élection rek dafa am nu mu koy dévalorisé ñu nekk nag ci dëkk boo xam ne bii li ñu wër yëpp dafa tàng ñun kas néew sedd biñ ci am am na ay yëngu-yëngu yu bare yoo xam ne yi ci wàllu liberté ci wàllu prisonnier politique yi ñu denc ak yëpp mën na jur loo xam ne ëllëg mën na tax ñu fekki ñaanuñu ko yàlla situation yeneen réew yi ñu wër kon nag lu jar a bàyyi xel ñu boole ci nag administration bi nga xam ne ñëpp dañ ko bokk ak justice bi kóolute bi ñu leen waroon wóolu des na ñu bare sax dañu foog ne e, te ci côté yu bare dañu am dëgg dañu foog ne ñoom dañu xaw a faral politiquement nguur gi ci wàllu national ci biir réew mi crise bi ñuy jànkonteel ci wàllu njàng bi ak université yi tëj njàngu wér-gu-yaram ci wàllu wér-gu-yaram wàllu ñàkk xëy ba xale yi di mbëkk di dem wàllu ñàkk karange ak ñàkk faju loolu amatul werante ba tax na ñun de fépp fu ñu dem ci Sénégal wër nañu dëkk bi yépp dem ci dëkk yi village yi fépp fu ñu dem nit ñi daal li ñu bëgg mooy changement loolu moom amatul werante aspiration boobu moom la nit ñi bëgg parce que li ñu daj gis nañu ko te bëggatuñu ko dajaat bugguñu ñu delloo bumba ca booy booy kon nag loolu tam bu amee ñu boole ci contestation yi am ci wàllu élection yi wax dëgg yàlla te contestation yoo xam ne du du contestation ku gémmiñam di ci rek déedéet ñu ne la waroo bokk ci élection yi nga ne dama mer di wax lu la neex du loolu de contestation yi dafa sérieux dafa am dafa am fu mu sukkandiku parce que bu ñu demee élection ba nga xam ne affaire caution sax ah nga versé caution ba pare ñu lay wax ne attestation buy wane ne versé nga ko moo la manqué te verse bi kenn werante wu ko xam nga ne problème am na bu ñu demee ci réew ba nga xam ne yow nga renoncé sa nationalité nga renoncé bind renoncé nationalité nga xam ne mooy problème de fond bi ah acte boobu ak ni mu fooree te terewul nga bokk ci élection yi kon ça veut dire que am na lu ñu laxas ci affaire boo demee ba def sa clé parrainage ñu jox la ko nga ñëw ñu ne la sa clé kenn mënu koo exploité xam nga ne problème am ak yeneen ministre de l'intérieur bi nga xam ne amoon na ak acquis pendant des années ñu ne képp koo xam ne kii da nga am partisan mënoo koo jiite organiser élection yi ñu lànk teg ko loolu am na problème parrainage bi nag waxi noppi kon contestation yooyu dafa tax Sénégal nekk ci gutt te gutt nag lu doy waar la ndax xob ngelaw li koy dugal ci gutt génnewu ko ci loolu mooy situation dëkk bi situation bi nag li mu laaj mooy ndax dañuy wéy ni ñu daan wéyee wala ndax dañuy dog buum bi loolu mooy rupture ou bien continuité ñaari groupe candidat moom dafa am ñoo xam ne ñii dañu bëgg a delloo buum ba ca booy booy li ñu daan def baax na def nañu ko soxlawul ñuy def bilan soxlawul ñuy wax seen responsabilité ci lu baaxul ñoom daal nañ leen delloo nguur gi ñu delloo buum ba ca booy booy loolu moo fi am am na candidat yu koy représenté ci seen biir nag yenn saa yi ñu xuloo yenn saa yi ñu werante seen biir waaye mburu foofu ko farine boo ko xoolee ba xool ko daal ñoom daal ñoom ñëpp bokkoon nañu dañuy def calcul rek boo demee ba affaire yi di waaj a daanu nga ne naa génn wax benn phrase gars yi ne bokk naa fële bokk mais groupe bi ñun xàmmee nañ leen te dinañ leen ñaas ba nit ñi xam ne ñii lii lañ fi nekkee woon parce que loolu suñu devoir de mémoire la par rapport ak population yi parce que fàtte xeju fi loolu dafa am solo ñi defoon defati ne xum bëgg a loo nit ñi ne lañ leen jox ñu delloowaat li ñu daan def loolu dinañ ci yee nit ñi ba ñu solde seen compte am na ci ñu solde seen compte am na ñoo xam ne sax amuñu benn compte bu ñu solde parce que ce n'est pas parce que da nekkoon di faral benn président di ko supporter politiquement ah ba que que da nga dugg ci yi muy def wala yu ñaaw yi muy def am na ay ñoo xam ne ñi amuñu rien à voir loolu dañ ciy def distinction kon nag camp boobu ñun ànduñu ci beneen bi dañu gëm ne balaa ngaa dem laaj dagaan baatu askan wi da nga war a leeral yooyu yëpp bu fekkee da nga géré woon ba pare waaye boo géré wul dem ba mu neex la rek nga def ko te li gën a garaaw ci groupe boobu booy mën nañ doone beeke beeke bu say tànk demul dafa am ay bant yooyu wéeru moom mooy beeke bu nguur gi demee ba war a këpp ñooñu mën nañoo jël seen doole jox ko pour mu taxawaat te loolu musiba la béykat boobu nag dañuy fexe ba mu bañ a jege pouvoir bi ba koy ba koy jot loolu bu ñu ko deful ñun li ñu bëgg ci suñuy programme fexe ba xel yi dal xol yi feex poche yi fees duñ ko mën a am programme bii moom pour nga appliquer ko il faut nga yore pouvoir te il faut nga yore pouvoir boo xam ne bii daf lay permettre nga am puissance étatique bu lay permettre nga avancer ci côté boobu kon nag gis-gis bi ñu am ñu tenk ko ci suñu programme tabax muy am Sénégal bu naat naataange bu sax mu wéeru ci ay doomam yoo xam ne yi ñi nekk fii ak ñi nekk bitim réew ñu xarañ te maandu ba pare li ñu am ci alal mooy suñu ressources naturelles yi mbel yi ñu mën ko jëfandikoo ba nga xam ne dina jëriñ askan wi ñun loolu mooy suñu liggéey te loolu pour def ko il faut que mu am rupture ñun rupture boobu la ñu àndal rupture boobu nag conditions yi ñu koy amee ah ñun ñoo koy sàkkul suñu bopp il faut ñu leeral askan bi moo koy àtte bi yoon nag est-ce que askan bi dina àtte loo xam ne dañ koy rëccu xam nga 2000 amoon na alternance gis ngeen fu mu mujj na dem na dem du programme kii na fi jóg nañu buuboo kii du programme ñu def ko 2000 defaat ko 2012 léegi nag fii amul na dem na dem ki ñuy wax na dem na dem dem na léegi dañuy xool naka la ñuy def ba xam fu ñu jëm ak naka la ñuy def ba yegg fa moo tax pàttali bi dafay baax pàttali taxawaay bi ñu am pour loolu ñun dañu gëm ne boo buggee yor réew da ngay équilibré maanaam da ngay digg doomu doo féete torop fii doo féete torop fële parce que bu ci ne kenn du bon cent pour cent kenn du baax cent pour cent adduna doxewul noonu am na ñoo xam ne dañuy naxe kuy naxe nag boo ko dégloo ba pare tëkkale ko ak jëfam di nga xam ndax day naxe wala naxe loolu ci campagne bi dinañu ko leeral am na ñoo xam ne dañu tëx ci artu dañuy nekk ci dara loo xam ne baaxul nga topp ci di leen wax ñu naan la déet duñu la faale déet déet ba ñu mbëkk mur moo tax gis ngeen liñ fi vivre ci ay événement yépp tëx ci artu moo ko indi ba mu jur lii mu jur ba ñëpp di ñu ko waxe am na ñoo xam ne seen doxalin du doxalinu garmi ci wàllu politique te politique garmi moo koy dafa laaj noblesse doxalinu garmi mooy nga am foo féete mu leer mu am cohérence waaw mais am na ñoo xam ne ñi doxalin bi ñu am même xale yi sax waruñu ko gis mag di ko def te loolu dinañ ko leeral ba mu ba mu leer ci kanamu ñëpp suñu jaar-jaar nag fi ñu jaar ci wàllu professionnel ni ñu xamee réew mi fi ñu dugg ak daara jeeg ni ñu xamee réew mi lim ñu sant mooy taxawaayu jaaxaanaay te loolu la réew mi soxla réew bu soxlaa bu amul équilibre bi may wax nii ba nga xam ne mën na euh, tàbbi ci loo xam ne du neex kenn dafay laaj ay kilifa yu mot kilifa yu mot yu maandu yu am expérience yu ubbeeku yu xam naka la àdduna bi di doxee Sénégal fii mu toll dañuy jóge foo xam ne fii dañu am endettement boo xam ne kenn xamul lan la koom-koom bi ndërmeelu nit ñi sonn ñu war a jëm nag ci foo xam ne fii dañu am positionnement ak pétrole beeg gaz bi ñu am boo xam ne ñëppay daw si di ñëw si ñu kon affaire état du affaire caaxaan loo xam ne dañ lay jox machine boo xam ne doo xam sax noo koy taalee ñu indi ñu beneen problème même sa benn déclaration sax bu dee da nga yor réew mën na indi musiba ci réew donc fii la ñu toll maturité boobu ak at yi ñu am fi ñu jaar ak li ñu yàgg a gérer dafa ñu mettre dans des conditions yoo xam ne moralement dañu am obligation wax ne ñun ñooy représenter profil bi nga xam ne moo gën ci Sénégal ku doon wër président Sénégal maa ngi nii. waxuma ko waxuma ko pour bakku dama ko wax ci wéer ko ci jaar-jaar boo xam ne amul werante kon nag bu ñu tolloo fii mu am ci. langue politique bi ñoo xam ne ay patriotes lañu fu ne jaar nañ fa liggéey nañu bëgg nañu réew mi seen loxo set na am nañu xam-xam dañuy fexe dajale ñëpp ba nga xam ne liñ fi defoon lu baax ñu dëggal ko liñ fi defoon lu baax danga koy dëggal protéger ko doo ñëw rek ne dañu yàq da ngay xool li baax nga dindi ko nga nga jël ko teg li nga xam ne waroon nañ ko def te defuñu ko nga def foofu la rawante bi nekk nga xam ne bu ñu toogee bay def bilan ñu xam ne yow li nga fi fekkoon yóbbu nga réew mi foo xam ne fii nekk foon donc li nga xam ne da nga ko da def waroon nañ ko def te defuñu li nga xam ne def nañ ko te defuñu ko bu baax nga jagal ko parce que am na lu ñu def loo xam ne nii ni ñu ko defee baaxul loolu lu koy waral parfois dañ ciy dañ ciy laxas loo xam ne bokk ci parce que bu fekkee dangay ngay liggéeyal intérêt général bu ko ci boolee intérêt particulier dugal ci ay corruption ak yooyu dañ ciy galgal loo xam ne lii bu ëllëgee day yàq sa liggéey loolu dañ koy jagal loolu c'est très important li nga xam ne nag dañ ko defar te vraiment niñ ko defaree waruñu koon def da nga koy jël wekkee ko sànni ko fële en respectant les règles yi nga xam ne yi moom la état bi signé en expliquant naka ngay def ba def ko loolu moo tax ñun dañoo pare pour gouverner Sénégal ci dal gouverner ko ci jàmm moo tax ñuy lancer appel ñëpp candidat yëpp ñi ñu recalé ñi buggoon a nekk candidat nekkuñu candidat ñi déposé ñi déposé wul ak ñi ñi ñi ñu accepté ak ñi ñu accepté wul ñëpp la ak électeurs yi ñu mànkoo doon benn ñëw ànd ak man ñu soppi Sénégal mu jëm kanam jërëjëf.